di baalu àq ñëpp di di baal àq ñëpp di dellu si waat nag ginnaaw bi nga xamee ne màggal gi jàll na tañ wax ne liñ ci wala gën a jàngate mooy xam nañ ne am na lu dox suñ digganteeg Serigne Touba li dox suñ digganteeg Serigne Touba loolee nag nan la ñuy def ba mu gën a dëgër gën a tegu fa mu war a tege loola nag taxoon nañu indi woon ay digg ay ndénkaan yu baree bari yoo xam ne dañ koo indi ngir mu ndénkaan yoo xam ne da Serigne Touba da koo jëmale woon ci ñi nga xam ne dañoo ay dañoo dañoo aju ci moom ak ci mboolem jullit ñëpp sax la ko gën a jëmale loola nag dénkaan yooyee li taxoon ñu indi ko mooy ngir bëgg kenn ku nekk war a mën a toog nag xalaatal boppam ndax man maa ngi tege ci yoon wi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëgg ma tege ca wala maa ngi jaar nu bokkut ak noonee loola nag li li li tax ñu war koo def moo di ne yàlla ci suñ borom moom ci boppam dafa dafa dañoo digal ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a wax ne da ngeen a gëm yàlla wa fat ni ngeen di xoolaat seen bopp di xalaat ëllëg ji ya nga xam ne moom ngeen jëm ndax la ngeen fa war a def ngir mën faa dund wu xéewal ma yéen a nga ca wala nekku leen ci loola nag kon bu fekkee ne jàll nañ màggal war nañoo xalaataat ndax ñun aju gii nga xam ne moom la ñu wax ne moom la aju seen Tuubaa ndax ñi ngi tege fa mu bëgg ñu tege fa wala ndax tegewuñ fa mu bëgg mu tege fa loola nag da lañuy la ñuy xamal ndax tege nañ fa nga xam ne moom la bëgg ñu tege fa xam nañ ne ni ñu ko waxee woon sëñ Tuubaa wàcc na ndax bi mu fi nekkee jëf na doo ñi mu nekkaloon di gis wax na ak ñoom itam waaye bàyyiwut ñi nga xam ne ñoo des ginnaaw itam bàyyiwu leen ak seen bopp ndax dafa bind bàyyi fi mu mel ni kon wàcce na ak ñëpp ñi nga xam ne nekkoon nañoo moom jëf nañu gis wax nañu dégg ñi nga xam ne nekkuñoo moom wala yàlla dogal na dunduñoo moom bindal na leen loo xam ne wan na leen fi nga xam ne fi nañ war a teg seen tànk ak fi nga xam ne fi nañ war a jaar mu mel ni nag yàlla ci suñ yàlla suñ borom bi nga mi nga xam ne moo nu bind ñun doom aadama yi ba mu bindee dañoo bind ngir mu mel ni dafa dafa tëgg ab course boo xam ne dafa bëgg ñu rawante ca ci course boobu ngir xool kan moo ci ëpp lu mu kan moo ci jiitu wala kan moo ci des ginnaaw ak kan moo ci gën a dox ak kan moo ci ñàkk doxadi loola nag ba moo tax mu wax ne xal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mooy at bind naa leen de waaye bi ma leen bindee dafa mel ni am na destination boo xam ne fa ngeen jëm mooy mawt moo tax mu jiital mawt waaye nag destination boobee dafa am yoon wu ngeen di jaar ngir mën faa egsi mooy dund gi mooy xayaat kon moo tax mu mel ni li tax mu njëkk a tudd dee ci ci dund mooy dañoo bëgg xamal ne am na destination boo xam ne fa ngeen jëm mooy da fi jóge yéen ñëpp waaye bu ngeen fi jógee itam. ba ngeen fay jóge daa am fu ngeen di jaar fu ngeen di jaar nag mooy àdduna si àdduna si nag ni ngeen fiy jaare leeralal naa leen ko bindal wax leen ni ngeen ci jaare ah, ngir mën a dajeeg sama ngërëm ëllëg ngir mën a raw ci kursu boobee nga xam ne moom laa leen tëggal loolee nag mu mel ni yoon wi nga xam ne moom nañu tëg moom nañu tegal ngir ñu mën a raw ci kursu boobee mooy li nga xam ne moom la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi woon te xam nañ ne Serigne tubaab bi nga bokk na ci dénkaan yi nga xam ne moom la ñu dénkoon daa waxoon ne din bi hudal islaami fa huwa diinu yox yuhli man bi bihi yadiinu dégaloon nañu kat ne bu ngeen bëggee tegee ci yoon wi nga xam ne moom suñu borom bëgg te bu ëllëgee ngeen mën a daje ngërëmam mooy da ngeen di doon ñoo xam ne da ngeen di diine woo lislaam dee na te diine nag nga xam ne moom ngeen di diine woo na ngeen xam ne mooy diine ju suñ borom tànnal boppam ndax ña ko ña ca nekk mooy yonent suñ borom dafa wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kon mu mel ni lii tax ñu mën a jaar ci li nga xam ne moom la suñu borom bëgg mooy ñu jaar ci diine yi lislaam yi nga xam ne moom la fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi xam nañ ne lislaam sax buñ ko waxee diine yi fi jaar yépp lislaam a ko tax a jóg waaye nag lii wuutee lii wuutee lislaam yi nga xam ne moo ñëwoon moo dina dafa mel ni suñu borom dafa am loo xam ne contrat la boo xam ne moom da koo teg képp koo xam ne bëgg ngaa wax ne da ngaa bëgg dugg ci lislaam contrat boobee faw danga koy signé mooy xam ne suñ borom rek mooy suñ borom xam ne mooy ki man xam ne mooy ki kattan ki am kattan moo xam ne mooy ki sañ xam ne mooy kenn ki nga xam ne sax moom lañ war a topp waaye nag toppin wa nga xam ne moom lañ ko war a topp moo wuute ci yonante yi kenn ku ne dafa mel ni dafa am lu mu lay liggéeyloo mu mel ni nag li nga xam ne moom lay liggéeyloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne moo matale li mboolem liggéey yi nga xam ne moo jiitu woon yépp mooy moom moom mu andi ko ci lislaam ji nga xam ne mooy ji mujj te doon xam ne itam na na ji na diine yu njëkk woon ci contrat bi nga xam ne faaw nga si ñante ko suñu borom xam ne moom mooy su borom xam ne moom képp mooy ki sañ xam ne képp moom képp mooy ki man xam ne moom képp itam mooy ki nga xam ne moom lañ war a topp te buñ koy topp itam na moom képp tax. loola moo tax suñ suñ boro seex sëñ sëñ Tuubaa bi nga xamee ne digal nañu ne na ngeen diine woo lislaam itam dafa wax ne axlis lahu al ilma ma al alami ma al axlis lahu al ilma ma al amali bi adabin yaatiika bil amali wax na ne kon lii tax ngeen mën a jariñoo ci diine jii nga xam ne moom lay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngeen ciy jëf te bu ngeen ciy jëf na yàlla rek tax bu ngeen ci xool leneen bu ngeen ci gis leneen ndax bu fekkee ne yàlla rek a tax dey li ngeen ciy séentu wala li ngeen ciy bëgg dangeen ko am waaye waxtu woo xamee ne am na leneen lu ngeen ciy xool wala am na leneen lu ngeen ciy seetaan lu ngeen ci lu ngeen ciy gistu lu ngeen ciy gisaat nee na loola suñ borom du ko nangu ndax moom xam na ne moom moo ki sañ mooy ki man te bëggut lennam ñu di ko jaxase leneen bëggut lennam ñu di ko jaxase keneen itam dafa bëgg rek lañ koy defal lépp nan moom képp tax waaye nag boo ko dee def itam du ko def doo na nga ci ànd ak i teggin ndax loola mooy tax jëfin wu rafet ndax mooy tax mu rafet sa digganteek sa borom mooy tax mu rafet sa digganteeg doomu aadama yi nga xam ne moom nga nekkal ci àdduna mu mel ni nag kon doomu aadama dafa mel ni bi mu nekkee ci àdduna si nga xam ne lañ ko wàcce na xool boppam mel ni ab commerçant la ab commerçant nag dana am loo xam ne mooy li nga xam ne mooy capitalam dana am loo xam ne mooy bénéfice dana am loo xam ne itam mooy perte nga li nga xam ne mooy capitalu doomu aadama ji nga xam ne moom la war a fës yéene ba dara du ko ci rëcc mooy farata yi nga xam ne suñ borom faratal na ko ci moom na góorgóorlu ba benn farata bu mu ko ci raw ndax loola mooy tax capitalam dara du ci rëcc lay tax itam capitalam gën a am mën a am bénéfice mooy nay jéem a taxaw ci di góorgóorlu ci naafile yi bu ko defee loola mooy li nga xam ne moo koy jox bénéfice li nga xam ne nag mooy indi moo koy indil pertement mooy mu jaar fu foo xam ne waru faa jaar mooy def ay bakkaar wala mu tooñ kenn loola mooy li nga xam ne mooy wàññi capital am di wàññi itam bénéfice mu kon loolu mooy dundug a doomu aadama doomu aadama dafa mel ni kon commerçant la boo xam ne dafa nekk ci àdduna si suñ borom jox ko capital xamal ko itam ne ko lii mooy li nga xam ne mooy bénéfice capital bi lii mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy mën a yàq capital bi mën a yàq itam bénéfice bi li nga xam ne mooy capital bi mooy farataal xam ne moom la suñ boroom farataal ci ñun li nga xam ne nag moo li nga xam ne mooy mooy bénéfice bi mooy naafali yi nga xam ne moom la ñuy taxawee di ko def ginnaaw farata yi li nga xam ne itam mooy li mooy indi nag suñ pertement mooy def ay bakkaar wala tooñ kenn kon loolu mooy li nga xam ne mooy dundug doomu aadama ba tax na doomu aadama ji nag war naa am fulla ju toll ni capitalam bu mu wàññiku su wàññikoo am na noo xam ne moom nga mën a def ngir ngir ngir capital boobee la ca wàññiku mën a dellu siwaat boo dee da ngay bu dee da ngaa am bénéfice itam am na noo mën a def ngir bénéfice bu gën di yokk waxtu wu nekk bu dee dangaa def loo xam ne itam day wàññi sa capital wàññi sa bénéfice am na loo xam ne mën nga faa jaar ngir sa capital mën a dellusiwaat sa bénéfice mën a dellusiwaat mu mel ni nag li nga xam ne mooy capital bi bu ca dara wàññikoo li la koy mën a lii tax nga ma mu mën a mu bañ a wàññiku la ca wàññikoon mën a dellusiwaat mooy da ngay góorlu ba bu ca dara wàññikoo na nga taxaw faw ci saasa daal di koy dellusiwaat mu ne bu la farata farata yi la war na nga fas yéene taxaw ci lépp loo xam ne rëcc na la ci itam na nga góorlu ba jéem a koo taxawee bu fekkee ne doon loo xam ne danga koo war a taxawee ci saasa bu doonee loo war a fay nga fay ko bu doonee loo xam ne da nga ko war a jéggulu ña nga ko séqal nga jéggulu ko ak bu dee bu dee itam li nga xam ne mooy bénéfice bi li nga xam ne moo koy wàññi bu wax boo ca mooy ñàkk cee taxaw ni nga ca war a taxawee kon saa yoo wax yëgee nag man kat sama bénéfice ni ma ni mu war a dolli ko dollooku noonu ndax naafile yi nga xam ne moom nga war a taxawee am na yoo ci taxawut na nga ci war a taxawee nga gën a góorgóorluwaat ci gën a taxaw ci li nga xam ne mooy mooy naafile yi bu fekkee ne itam da nga doon koo xam ne da ngaa yëg ne am nga yaa ngi am perte yaa ngi yaa ngi yaa ngi am pertement ci li nga xam ne mooy sa capital ak sa bénéfice loola nag la la la cay dimbale ngir mu mën a dellusiwaat mooy nga doon koo xam ne da ngay jégglu suñ borom te di ko tuubal ndax loola mooy mën a dellusiwaat bakk mooy man a dellusiwaat li nga xam ne mooy sa capital ngir mu war a mel ni nga xam ne du mel loolu nag li tax ñu ñu war ñu war koo def moo dina comme li ñu waxoon léegi ne suñu borom dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma xaddamat li xad wa taqullaha inna allaha xabirum bi ma taamaloon yéen doomu aadama yi nga xam ne da ngeen a wax ne da ngeen a gëm yàlla li lii tax ngeen seen ngëm yàlla googee dëgër mooy da ngeen di bàyyi xel fa leen suñu borom joxañ ne ëllëg fa ngeen jëm te di te di tey xalaat la ngeen la ngeen di def ndax doon na lu jag foofa wala jegu fa ndax loolu mooy li nga xam ne moo leen ciy dimbale loolu nag tax na sayidna omar salla ale radiallahu taala anhu arda daa wax ne na ngeen fexe bay di di di jàngat seen bopp njëkk bis ban leen di jàngat kenn ku ne mën ngaa jàngat sa bopp ndax kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp sa bopp ci keneen te yàlla itam dafa doon koo xam ne nag mu nee su koo njublang mu nee su ko ndax mu nee su koo jaar fenn fu dut fi nga xam ne rek fi nga jaar ndax lépp moom da da koo teg ci yoon ndax li tax bu teg ko ci yoon moo di ne bañ na ko ba moom li muy xam lépp ak li muy man lépp teewut mu dalaa wutal ay seere yoo xam ne dañoo nekk say mbagg lépp loo xam ne def nga ko ñu bind ko lépp loo xam ne bàyyi nga ko itam ñu bind ko wàcc moom itam fexe na ba aw lay deesu ko mën a am fële feex na ba kenn du ko mën a nax fexe na ba kenn du kenn du ko mën a jaar feneen fu bokkute fi nga xam ne fi lañ war a jaar loolu nag moo tax moo yóbbu woon say Omar ci bis ci waxtu wu nekk saa yu toogee ba guddi mu laaj boppam ne man ndax lan laa def tey ci bisub tey jii bu ko defee laaj googee ngay laaj sa bopp da nga ci xamee bu fekkee ne danga am loo xam ne dafay wàññi sa capital te defoo ko nga góorgóorlu def ko bu dee fekkee dafa doon loo xam ne danga ko da gis ne lii day wàññi sa bénéfice nga gën a góorgóorlu ngir gën koo def boo gisee ne itam lii dafa doon loo xam ne dafay da dafa dox sa diggante ak doomu aadama yi ci ay àq loole itam nga jéem a seet noo ko noo ko lijjantee bu doonee loo war a fay nga fay ko bu dee loo loo leen war a balu àq nga dem baalu leen ko àq loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu war a def yàlla nañ suñu borom mi nga xam ne nag mooy borom jàppale. te mooy borom ndimbal te mooy mën a taxawul doomu aadama yàlla ñu dimbali ba taxawal nu boppam ba buñ jaar fenn fu bokkut ak nga xam ne fi la bëgg yàlla nañu narganal boppam ñu jaar fi nga xam ne fi lañ war a jaar dimbali na nu boppam ba duñ jaar feneen fu bokkute ak fi nga xam ne fi lañ bëgg fi la bëgg ñu jaar fa loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw boobu ñu tàllal suñuy loxo ñaan suñu borom ngir xam ne ay jaam yu doyadi lañ xam ne ay jaam yu mënut lañ xam ne ay jaam lañ yoo xam ne kenn rek lañu yaakaar ci ndimbalam te moo nu mën a dimbale ndax moom am ndimbal te moo am sañ-sañ te mooy ki nga xam ne moo am kàttan muy suñ borom ñu di ko tàllal suñu loxo di ko ñaan Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moom fi moo fi nekk Serigne Touba suñ borom gën koo dëgëral gën koo jàppale gën koo taxaw gën koo dimbale ba indi tànnal ko ay ñoo xam ne ay àndandoo yoo xam ne ñoo moom ñoo bokk ñoo bokk fuñ ñooy bokk benn bëgg-bëgg ñoo bokk itam fenn fu ñu jëm de dimbale ko itam ba lépp loo xam ne mooy gàllankoor wala ndokk mu teggil ko ko. ba lépp loo xam ne yéene na ko te xam nañ ne yéeneem rëy na ci yoonu sëñ Tuba yéene joojee suñ borom dimbalil ko boppam ba mu àggale ko fu kaw njortam tañ ànd kook moom te daje ci ngërëmul suñ borom ak ngërëmul sëñ Tuba ginnaaw loolu itam di ñu ñaan googu ñu ngi koy ñaanal képp koo xam ne lislaam moo la taxa jóg képp koo xam ne taxawaayu taxawal lislaam moo la taxaw a jut yàlla na suñ borom dimbalee taxawu la jàppale la dimba mutale ci mépp ndog ak mépp bépp pakk ba lépp loo xam ne yéene nga ko def ci lislaam nga def ko te daje cee ngërëmul suñ borom te ànd kook ña ña nga xam ne ñoom ñoom ñoom nga ko war a àndal loolu suñu borom mën na ko jàpp nu yàlla nañ ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana la tusi xulubana baxda is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab rabbana la tuaxisna in nasina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna isra kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxamilna ma la taaqata lana bi waxfu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alxawmi alkafirin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa sallu ala nabiyyikum sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam